mbokk yi daw si leen gaaw si centre Darou Salam boo leen ñëwee di ngeen fa fekk Ibrahima Khalil Niang muy médecin traditionnel bu yàlla may mu mën li muy def lool da nga amee faiblesse sexuelle mu sonal la si sa wàllu sëy boo jëflanteeg Ibrahima Khalil Niang rek sa jàngoro day daal di saafarawu danga nga amee éjaculation précoce di néew kattan booy sëy boo jëflanteeg Ibrahima Khalil Niang rek sa jàngoro dina daal di saafarawu mbokk yi xam ngeen na awra bu dëgërul dafay yëngal néegu sëy moom rek sa awra dina mel na melatoon dëgër ba booy def say farata nga defee ko ca anam ya mu waree mbokk yi xam ngeen ne sperme bu oyofee dalay tere am doom loolu Ibrahima Khalil ñaa suñu borom may na ko si dina la faj ba nga wér ba da ngay toog si ruq sant yàlla bu baax a baax bu fekkee ni danga nga sentir na sa awra day commencé dellu di gën di ndaw loolee tamit suñu borom may na ko si Ibrahima Khalil Niass médecin traditionnel bu mag suñu borom may ko ay may yu am solo ku nekk di kontaan ma Daaru Salaam Ibrahima Khalil Niang fan nga nekk ñu ne ñu ngi fi nga xam ne moom moo di suprême excitation si côté agence u Tigo bi a ah, mbokk yi daw si leen foofu numéro téléphone bi ñaata la mu ne numéro baa ngi noonu mën nga woote si 78 309 42 42 78 309 42 42 daw si leen gaaw si centre Daaru Salaam asalaamualeykum waa senegaal salaamualeykum waa àdduna waa Lu Xew TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jaam tey ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp donc si bisub poroxaan bi di bisub soxna jaara buso ñi ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci àdduna bépp ñi ngi ñaanal ñi nga xam te ni dem nañ màggali yàlla delloo delloowaat leen seen kër ci jàmm di ñaan lépp luñ fa sàkku yàlla nangu ko te def ko ci àdduna bépp ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm. bu loolu weesoo ñi ngi leen di rappeler encore que numéro bii ngeen di gis mooy sunu numéro service commercial képp ku am loo bëgg a moo xam da ngay jaay wala lu mu mën di doon. nga bëgg mu am visibilité maanaam nga wane ko jàllale ko ci YouTube ba ñëpp gis ko boo ñu contacter incha allah dinañ ci waxtaan ak yow wax la nan lay demee. donc tey vidéo bi ñu leen di defal benn réaction la bu ñu jot ci sunu benn mbokk sénégalais. mu def ko ci série bii di maîtresse d'un homme marie comme niñ ko waxee woon képp ku am loo ci bëgg a wax man nga ñu ko envoyé incha allahu dinañ la ko leen waaw dañ la doon wax ni kon ñu ngi ñu ngi ziar rek ginnaaw bi ñu rafetloo euh, vidéo yi ngay dugal ak yooyu di la wax ni ñu ngi leen di suivre ñu ngi leen di bàyyi xel di suivre di di suivre tamit euh, série boobu di maîtresse de homme marié. Euh, defe naa noonu la tudd ma ñu ngi koy suivre bu baax euh, di ko bàyyi xel di ci gis suñu bopp nag euh, ma leen di wax nii leen gis naa ni critiques yi xaw na ci baax c'est parce que am na lu ñu ci doon wane si début bi dafa mel ni mi ngi xaw a deñ ndànk-ndànk mi ngi xaw a deñ ndànk-ndànk parce que am na yu ñu doon xaw a wane yu xaw a vulgaire rek waaye dafa mel ni épisode yu mujj yi sentir naa ni gisatuma ko ci bu baax quoi kon kon dafa mel ni critiques yi baax na ci tuuti parce que ki la ki kiy def moom ki ko seetaan la bëgg te ki ko seetaan it yaakaar naa moo ko sañ a wax defeel nii wala bàyyil defeel ne ba tax na ñun moom série bi ñu ngi koy rafetlu di wax nii macha allah nañ ci nañ jàpp rek mu gën a baax ñu wàññi ñu gën a wàññi rek yenn kii yi quoi bagage yu vulgaire yi parce que luy jàngale ci wàllu sëy ak di jàngale ci mbiri kër moom lépp lu koy lu ci indi yàq rek dañ ko ci seppi sànni jàll ba te defe naa ni yooyu moom maa ngi gis nii mi ngi mi ngi ñu ngi koy dindi bu baax daal may wax ni tamit euh, ni affaire bi moom boo xoolee ñi koy critiquer di ko bañ ak di ko soofantal ñëpp mooy xaj na sama mbokk góor yi nga xam ni ay doxaankat lañ parce que arrangé wul benn doxaankat képp koo xam ni da am jabar di doxaan rek bu série bi dee daw si sa kër mun na am ni dina la gêner. da lay xaw a gêné quoi da lay xaw a gêné pour nga mun ko seetaan yaa ak sa famille wala nga mun ko seetaan yaa ak say jabar ak yooyu da lay xaw xam naa loolu mooy tax nag nit ñi di ko xaw a critiqué bu lu baree bëri bëri waaye nag série la comme série te ay réalité rek laa ci gis man parce que li ñuy jàngale wax dëgg yàlla loolu du nga am ci dëkk bi. loolu dong nga fi am wax dëgg yàlla li ñuy jàngale yëpp am na fi bu dee ci côté ndaw se day daj coono bu nekk ci sëyam te teewul taxul jë am am jëkkër ji ko gënal mm, loolu loolu moo moo dal ñëpp bu dee comme Cheikh tamit gis nga jabaram ni mu baaxee ndeysaan mënal ko lépp doon jigéen gu baax mais teewul moom daal ndeysaan mu ngi doxaan te kii muy doxaan mi ngi koy bëgg a lu mu bañal jabar ji rek nangul ko ko muy doxaan moo tax nga xam ni àdduna daal doy na waar loolu lañ ci bëggoon a wax rek di la jaajëfal ah. donc macha allah ñoo déggandoo li mu wax wax ji gàtt na mais am na solo am na benn point nag bu mu wax boo xamante ne si nii point bu am solo la. mooy ki nga xam te ne day jouer série ku ko seetaan la bëgg mais kii seetaan également am na droit critiquer am na droit approuver comme am na droit bañ a approuver man sama part personnel comme ni mu ko waxee yenn point rek laa d'accordul woon mais instant yi gis nañ que ni mu ngi changé donc ñi nga xam te ne dañoo jug di xeex pour ñu censurer série bi man ànduma ci te xam naa ne ñu bëri ànduñu ci parce que série bi mu ngi jaarale ay message yu am solo donc di encourager ñi nga xam ni ñoo koy réaliser ak acteur yi ci nekk ñu bàyyi waale xel ci critique yi nit ñi di def parce que tey lépp loo gis ci àdduna boo ko dee def bul bañ ku la critiquer parce que critique yooyu noonu moom mooy tax nga mën a defaruwaat gën a mën a jëm ca kanam donc yéen ñi nga xam te ni yéenay supporter série bi yéen ñi nga xam ni yéenay fan su série bi jàpp leen ni critique yooyu nit ñooñu di def xool li ci baax ñu jël ko yokk ci seen bopp xool li bon ñu teg ko à côté dinañ gën a avancé te yéen ñi leen di supporté di ngeen gën a kontaan. àdduna lépp loo mën di dugg bul bañ ku la critiquer kon waa Marodi TV tey bu ñu présenté dara am ñu nangu am ñu nanguwul seen normal mais li ñu war a def mooy ñi nga xam ne nanguwuñ li ñuy wax ñu jël ko xool li ci baax segg ko doole ci seen bopp li bon ñu teg ko à comme ça dinañ gën a avancé donc di leen bu baax. di remercier ñëpp ñi nga xam te ne ñu ngi suivre suñu analyse et comme on na l'habitude de le dire wax jii ñu fi wax képp ku mu laal wala képp ku mu déranger ñu ngi tuub di jégalu bu baax a baax di leen xamal que suñuy point de vue la ñuy jël di ko partager ak yéen bëgg ci weccoonte ak yéen xalaat mais lépp ñu teg ko ci respe parce que lu respect amul rek du dem donc ñu ngi tuubaat di jégaluwaat bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm di leen jox dig daje ci beneen analyse incha allah wasalaam.